di seetaan di ñaanal seen doom di siidi alors te tribunal euh, vraiment euh, jël na décision bu ànd ak sagesse ak yërmande tribunal tey bu mu joxee décision bi dafa ne siidi dañ ko war a bàyyi si affaire phobie ak ñun plaidé nañ loolu waaye nañ tribunal loolu amul te tribunal joxewul dëgg maag avocat yi maître Abdoulaye Tall maître Aline Badara Fall maître Adama Ndiaye wootu vraiment ak maître Khadim Kébé Bamba Cissé alors donc vraiment jàpp jox na dëgg euh, Sidi te vraiment tribunal naw na comportement am euh, lii nag ñu ngi koy rafetlu bu baax te dina tax aussi à l'avenir Sidi jël ay disposition ay mutuwaayam dina gën a tax mu xam ne yoon dafa sew. mais na ci luñ ko condamné amende lan la. waaw justement euh, amende bi cent cinquante mille la ci condamnation bi effectivement tribunal dama ne sànq daf ko bàyyi si faux bi ak mais dafa retenir lu ñuy woowee conduite sans permis daa da doon dawal amu woon permis te amul assurance. xam nga ci kaw loolu tribunal mënoon na ko daan benn peine boo am day tëdd mais alhamdulilah tribunal deful loolu lan la tribunal def tribunal dafa koo collé benn amende condamné benn amende cent cinquante mille francs te tribunal encore une fois Serigne Sirlu Goto dina ko restituer permis bi ñu saisir si moom incha allahu rabi bu soobee yàlla jërë ngeen jëf. waaw dañuy delloowaat lépp ci yàlla rek comme niñ koy waxee yaakaar naa ne ah, lii moom ab jàngat la leçon la si ñun ñëpp. di wax na rek yàlla moo ko tegoon natu te bi mu ko waree teggi bi heure bi jotee mu war ko teggi sunu borom teggi ne ko duñ def daal lu dul sant rek lii lañ ko doon ñaanal ñu ñëpp si fajar ba léegi ñu ñëpp ñu ngi fii wax dëgg yàlla kenn lekkool kenn añul kenn deful dara liñ ci jublu woon nag tàllal suñu loxo ñaan suñu borom te suñu borom nangu na ñaan bàyyi nañ ko di ñaan rek suñu borom defal ko xéewal waaw mais àdduna ku juumul rek maanaam àdduna boo juumul ah rek doo am leneen lenn lu la ci fekk te yaakaar naa ne àdduna kenn matul ñëppay juum njuumte la woon def na ko reconnaître na ne juumu na ah wax dëgg yàlla juge bi def na liggéeyam avocat yi def nañ seen liggéey ay mbokkam ay am di jàmmam ñëpp ñëw nañ teew sunu boroom def na si ndox mu sedd dañ koy ñaanal li yàlla bu mu ko dalati yàlla bu mu dalati kenn waaw ñi fi nekk sax si barkeb sëñ Fallou maa ngi leen di ñaanal suba suba suba suba yàlla nañ bàyyi ñëpp ñu ñibbi dem seen kër si barke sëñ Fallou. mais mais am fekk euh, gis nañ ne artistes yu bëri amuñ permis ba léegi te ñu ngi dawal. Mhm. loolu lan mooy sa xalaat tey. waaw loolu mooy li ma la wax rek njuumte mënut weesu loolu ñàkk permis di dawal loolu erreur mënu ko weesu mais ku dul juum amul juum na d'accord ne na juum na ah, waaw ñeneen ñi koy defit li ma leen di li ma leen li ma leen di ñaan rek mooy que rek ku ci amul permis rek na nga dem uti permi ci barki sëñ Fall waaw di kontaan ci yéen ñëpp waay jaajëf voilà comme ni ñu gisee nii euh, si li nga xamante ni rek moo mën a kon procès Sidi Diop bi ngeen gis ni rek euh, juge bi euh, daal di koy euh, libéré nga gis ni ay mbokkam ak ay am di jàmmam ñëpp daal ñëwoon fi nga xamante ni moom mooy si tribunal daal di teewlu li nga xamante ni moom mooy procès bi waaye nag bu loolu yëpp daal di yombee di leen wax ni rek Sidy Diop bàyyi nañ ko muy pour mu ñibbi voilà bàyyi nañ ko rek pour mu daal di. pour mu daal di ñibbi comme ni koy comme ni ñu koy expliqué waaye tamit am na ay amande yoo xamante ni daan nañ ko koy jox am na amende yoo xam daan nañ ko koy tegal moo te lu tolloo si euh, lim bu toll cent euh, cinquante mille lañ ko teg si ay daan en ah, délégué. ah man daal bàyyi nañ Sidi sama xol seet na du guy. waaw ah, bàyyi nañ ko képp ku ci jàpp daal ak ku mu mënti doon daal gis nañ fi délégué ah, daal xam naa ne ku ci sa dugg maa ngi lay sant maa lay gërëm. waaw loolu daal laa xam ne naa lu ma ci wax. Euh, Sidy ma koy wax lu dul natt moom bu waree ñëw ci jàmm moom day ñëw force rek loolu amul wax loolu décision bu jël jugee ci yàlla jàmm mënu ci dara waaw te lii lu war a am la. te yaakaar naa ne incha allah bi bu tey passé di ngeen gis leneen lu bees waaw loo gis rek lu lu lu war a am la. Mhm. ñu ne ñu ne affaire de staff la staff am moom matewut tout ça yow loo si wax. wallaay natt xoolu staff natt bi ñëw ci yaw xoolu staff xoolu patron ba xoolu borom label ba xoolu waykat ba mm. natt bu yàlla wàccee ci jàmm bu ñëwee da ñëpp lay tëb ci ku mu war a dal lay dal ci moom kenn mënu ci dara lii maanaam bu amul woon di ngeen dégg leneen hmm? di ngeen dégg ne Sidy daw na boo oto bi këpp wala di ngeen dégg Sidy daw na ba rey nit barki Cheikhul Khadim lii lu waroon am ci dundam la ñun mu nekk loo xam ne lu ñu sante yàlla la mais en tant que responsable Sidy Diop yor ku xoolal moom mboobal nekk si ginnaaw en tant que que war naa dawalee sans permis lépp jàngat la fii mu ko dalee nii fii mu ko dalee nii fii moo jar a sant yàlla mënoon na ko dalee feneen fu dul fii mu gën a ñaaw te lii nii maanaam moom jàngal na ñu bëri exemple la waaye natt bu wàcc koom la ñun ñun nangu nañ dogal barki alxuraanu karim nangu nañ dogal mu nekk loo xam lu ñu neex la dara mettuñu ci ndax nattu la ah Aziz dafa ah Aziz ñu ñu ñu fekk néegam ren ko si da koo gën ah Aziz bu amoon li si du di sant yàlla ah waa kon tey. des fois dañuy faral li nga mooy star yi duñu ñu fa euh, euh, maanaam favoriser li nga seen côté ay kayit comme si réew mi yooyu et cetera. wallaahi Azim barki Seydina Mohamed natt amul star wallaahi Azim amul star barki alxuraanu karim lu waroon wàcc la rek. billaahi mais ni ñëpp sant yàlla rek mais en tout cas euh, encore une fois yéen bi. yéen presse ñëpp dañ leen war a sant ndax suba ba tey yéen a ngi toog fii fay ñu leen lekkoo leen naanoo leen xam nga yéen dañ leen war a sant ndax ay jàmbaar ngeen ndax li ngeen def ni yombul man li laa gëm ci àdduna gis ni nit ki bu amee bànneex fekk ko si mais bu amee naqar taxaw ko kon li ngeen def nii ñu sant nañ leen gërëm nañ leen yàlla leen yàlla defal jàmm presse bépp nag waaw sant nañ ñëpp jërëjëf Barito waaw merci ñu ngi lay di la ziar bu baax a baax Abou di euh, Euh, Momo suñu xarit bi macha allah. Mhm. maa moom ànd nañ fu nekk. dëgg la moom ba Gambia. waaw ah, dëgg la dëgg neexul. dëgg allah. maanaam bi bi ngeen taxaw wane ngeen yéen a bokk ndey yéen a bokk bàyyi ci kenn ko xamante bu ko maanaam jafe-jafe dalee da nga war a mën a assister ñëw taxawu ko. waaw loolu la c'est le Sénégal. Sénégal nee naa benn drapeau la. musul changé du ma a changé muy vert jaune rouge. Mhm. kon maa si Sidy Diop Sidy mooy man. dëgg la Euh, Sidy Diop mooy Wally Wally mooy Sidy Diop Matar Diop Soubatel mooy Ndiaga Euro Ndiaga Euro mooy Matar Diop Soubatel te yaakaar naa loolu mooy showbiz Sénégal mm-hmm. kon lii bu amee tey nattu bi nga xam ne moo daal ci Sidy Diop doomu aadama rek du xutba samaan du yonent mm-hmm. sëriñ mm-hmm. doomu aadama rek boo xam ne day daw ci àdduna te kuy daw nag fokk fakkastalu am kon lii ko dal nii nattu la dañoo war a ñëw taxaw ko lii du showbiz lii diine la lislaam la te lislaam moo ko wax sama romb doomu aadama rawat na jullit boo amee jafe-jafe da nga war taxaw ko ak lu mën di am kon Sidy Diop li ñu ko defal tey depuis 10 heures ba léegi maa bi fekk fii euh, bépp artiste sénégalais bépp musicien fekk naa ko fi tey képp kuy dund soobis kon lii moo ñu war tey ñu taxaw suñu rakk Sidy Diop mu génn ci lii parce que ku nekk xam na kaso man jaar naa kaso xam naa lan mooy kaso kaso mën naa ne deegu ndaw la hmm. kon doo ko yéene doomu aadama ma ko doon rek laa ko ñaanal tey sama ñaan na ñaan naa ko màggal Touba te Serigne Diop gëm naa ne man dëggi dëggi taaliba Serigne Saliou la parce que am na weer boo xam ne dafa yàllaa ko màggal jox ko Serigne Touba. muy 18 safar. waaw 18 safar ñu jàpp ci Serigne Diop. mu dugg kaso <laughs> Serigne Touba am